jërë ngeen jëf mbokk wasaare làmb wasaare TV ñoo ngi fii ci seen ziar mbër fekk si fi benn mbër bu mag muy Garga Mbossé ñu fekk ko école la muy entraîné Garga nuyu naa la. waaw fay nañ la bu wér Ousin di nuyu waa Sénégal di nuyu waa wasaare yëpp ak internet yi. ñu gëj laa gis Garga ci lu mu nekk. waaw maa ngi fi de maa ngi nii nekk ci li mu war a nekk rek waaw. ñu gis la nga voyage woon dem États-Unis ñëwaat lan moo la yóbbuwoon États-Unis waaw avant tout damay ziar sama gars yi fi nekk yëpp waa écurie bi di ko teg ci loxo carré Alioune Mbengue Cheikh Thiam ñoom père Gora bëgg fàllu ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu mbëru écurie bi nuyu aussi waa parcelle fi ñu dëkk koñ bi 1 ba 26 bàyyuñ kenn Cambérène Fadia Golf tout ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp li yóbbu woon ñëpp rek moo ñu yóbbu ndax doom aadama moom buy dund soxla nga yeesal sa xamel yokk sa xamel su boo tukkee moom boo awul xaalis di am xam-xam di nga xam ay nit yu bees di nga découvrir aussi loo xamul woon waaw loolu moo ñëw woon. dem bi dañoo jaaxal parce que dañoo gis ne bi ngay waaj combat la ñëpp sóoroon nga dem nga bëre ba noppi amoo combat nga dem lu waral loolu da nga gis ne bi ngay bëre Moussa Ndoye doole ji dafa des wala lan moo tax nga dem États-Unis dégguma bi ngay bëre Moussa Ndoye gars yi doon xaar bi ngay waaj ngay dem États-Unis mais ñu gis la nga bëre ba noppi amuloo combat ba noppi nga dem États-Unis lu waral lool. waaw mooy li ma la rek ku nekk ak sa sa sa sa façon am na ñoom dañuy am combat dem mais man yàlla dogal na ma amee combat mën naa ko préparer fii jarul may dem bi ma bëree ba pare aussi sama grand bu baax bu ñuy wax ma Diouf moo ñëw ne ma da war a dem États-Unis def fa nangam ak nangam ak nangam ak nangam ñu waxtaan ba déggoo mu dagal ma bi ma dem États-Unis def fa la ma waxoon ñibbi si toog waaw loolu la rek. nga dem États-Unis daj fa yeneen entraînement yoo xam te wute na ak fii nga bàyyi fi bi dem ñëwaat noo gisee équipe bi ak entraînement yi nga doon entraîné foofu ak fii. waaw sant nañ bu baax parce que équipe bi ñun yoruñu ko suñuy morom lañ fi nekkal suñuy nawle suñuy raq ñu gëm li ñuy def ñëpp bëgg ko xaaruñu gërëm boo seen nekk fi wala ñàkk fi nekk équipe bi man li ma fiy ñëw sax dañ koy compter mais équipe bi guddeeg bëccëg every time every day mi ngi dox. gars yi ngi entraîné ñu ngi koy teg si yoon boo xoolee booy ak performance yi ñuy def nga xam ne ñoo ngi koy teg si yoon. waaw ñun aussi bañ demee fële gis nañ fa yeneen façon entraînement xam nañ fa yeneen nit gis nañ yeneen discipline voilà quoi sportif la ñu lépp loo xam ne lu jëmale kanam sport bi la buñ ko xamee dañ siy nekk waaw. ma ñëw sa combat ak Moussa yi dama dégg début combat bi nga ne année balance moo la boole ak moom ñu ñëw nga gis combat bi nga yen ko lépp. taxaw di ko déglu andi ambiance neexal stade beeg lépp mais ñu gis nga ñëw ba ci làmb ji téye sa bopp taxaw di ko déglu lan moo waroon lool da nga koo xeeboon wala da nga yan bés bi wala nan la woon loolu non làmb moom euh, stratégie la rek Moussa Ndoye champion la maa ngi koy nuyu bu baax di ko ziar def na ay performance wane na boppam li tax ñuy bëree ñenn ñi jox ko favori c'est parce que daf ko mérité wane na loolu wane na xeex wane na njàmbaar ñëpp xam nañ ne gaynde la. mais ñun aussi du ñu duñu duñu duñu cuune si làmb ñu ngi bëgg a yàgg si làmb et bu ñu amoon ñu si mën bu ñu tuddee suñu du ñu tudd kon am na foo xamante ni bu fa bis tollee da ngay seetlu bis bi laaj rek nga def ko xëy bis bi moo laajoon loolu mais liñ préparé woon sax yàlla xam na ne defuñ ko si combat parce que làmb da ngay calculer fii mu génnee fale mais liñ si waajoon dëgg defuñ ko mais nag ndam moo si am solo am nañ ndam. ñu gis ñi ngànk làmb ñu ci bari dañ koo jox yi muy xeex bi ba bëgg lépp. ñan nga tuddee ñi ngànk làmb yow. nanatu Ipo Ngari wala. Ngari ban fan lan la ngànk ci làmb. a ah, mooy yor micro central bi. waaw mais yor micro central ak làmb du benn. ndax bu bëri amul ñoom duñ taxaw foofu di wax. mais bi nga déggee li mu wax lu mu la def. sax maa fay nii chaud nii froid ay ree la ma def. mais moo tax ñi ngànk làmb duñ la wax loolu. ñi nga xam ne dañoo xam làmb bëre wala ñu mës a bëre takk ngemb pardon ñooñu duñ la wax loolu làmb nag du biir day xëy rek wasin tam nit ñi dañoo gaaw fàtte mbër bu teg la ñaari saison exploit foo taxaw ñu ne yow la mais Moussa ci boppam bi muy bëreeg man xam na ne combat la mais xam nga ne yéen di ngeen bokk adversaire yu ngeen daan yow ak Moussa Ndoye. loolu moo taxawal combat bi loolu moo tax combat bi taxaw xam naa ko. Hmm. ñu jógee foofu nga daan ko boobaak léegi dégguñ sa combat ñoo ngi dégg di ñi ngi wax di jàpp di bàyyi la ma wol boobu léegi combat bi taxawagul. waa xëy na daa jotagul rek ak fi làmb toll aussi ndax gis nga fi làmb toll presque combat yi fi taxaw dañ leen di compter démarché nañ ñu benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mais yàlla moo dogalul mu antu xëy na bu suñu wërsëg jërëjëf rek dinañ ko jël incha allah. kan la ñuy démarché sa diggante yow kan. non ay combat yi bon peut-être lenn li jàll na lenn li jàllul mais wax ci làmb actuellement nii dafa jafe. l'essentiel li fi ñor ñëpp xam nañ ko làmb day toll foo xam ne dañ naan diggante diw ak leen tuddee tuddaat leen tuddaat leen rek parce que jaadu na parce que amateurs yi koy taxawal li jaadu yow xam nga ko man xam naa ko mais ñii seetaan xamuñu ko lan moo jaadu sa bon combat <laughs> li jaadu man pour man mooy ma bëre rek non dé ne bi jaadu bi bi laa bëgg ñu wax non li waxuma combat bi jaadu dama ne lu jaadu ku ko dégg danga koy xam waaw lan moo jaadu lu jaadu mooy mbëri am combat bëre muy man ka muy sama morom waxin la rek loolu man naa benn booy bu nekk fii ci ginnaaw. Mhm. moo ngi takk rajo yi di wax. kan la. saa Thiès. waaw lu mu wax. ah li mu wax kay ñëpp dégg nañ ko yow sax dégg nga ko. dé mais li mu wax lépp xam nga mënu ma ko tontu. ndax hmm. mën naan wax na nangam. léegi yow ban nga ci dégg yow. man di bàyyi ma ko xel sax. Hmm. li ma ci waroon wax wax naa ko ci voilà. baa ji li gis naa ko mu am ñu mu seeti nee nañ an proposé na adversaire mais ñoom nee nañ Garga Mbossé moo leen gën comme buñ la ko ah ñu ko jege. ñu jege kan. jege Sa Thiès ci boppam. ndax nee nañ yow loo mën a am bëgg Sa Thiès moo la ko gënal. waaw xam nga nit moom mënoo xam sa gént xam sa gént morom ñoom ñooy wër di wax ñooy coow ñooy créé lépp xam naa lépp mais fii moom mënoo nettal man maa ci làmb ñoom ñoo ngi ci làmb ci bu yàlla dogalee ñu war a bëri nañ bëri parce que ay ndaw lañ dañuy mayante xaalis. dama la wax léegi yaa ngi Moussa Ndoye nga ne adversaire ñëwoon boole te yow ak Sa ngeen bokk ñetti adversaire da ngaa daan la góos mu daan la góos nga daan tonnerre mu daan tonnerre nga ñëw booy daan la booy moo ko daan. Mhm. booleeg ñu duggandoo ci làmb ci benn saison. mu bëyal la petit combat nga bëyal ko waaw ma ne booleeg ñu duggandoo ci làmb ci benn saison. Mhm. parce que benn saison boobu muy wax noonu. Mhm. ci laa dugg bëreeg Cheikh Diop daan ko bëreeg Ndiakhoum daan ko bëreeg Ibou Fall daan ko man yàgguma ci combat préliminaire loolu moo tax ma bëre grand combat mu bëre deuxième combat mais loolu yëpp du wax gis nit rek la mun a doon booy wax ñetti nit ak ñeenti nit di la déglu rek war ngaa xool ni ngay waxee man kilifa laa duma ma xasante du ma waxante wax bu ñaaw bëgg kombaa bu taxaw du tax ma wax kenn lu ma ko warta wax. Sa Thiès sama nawle la ku ma respecté la bu ñu waree bëree nañ bëree nar a yaru na yaru rek. est-ce que fi mu toll nii combat bi jotul ndax dégg naa Prince mun a jox ma ko avance te date bi mu ko jox. su amul adversaire moom dina simmee ko bëre moom est-ce que Prince seet si na la pour yow sa combat yow ak Sa Thiès. non Prince seet ma nag dégg ay wax maa ngi dégg ne mais fi réew mi toll. kuñ la jox nañ la ay millions nga bañ sax say lay njëkk woo teg si code. Prince seet siwu non seet siwu ma message WhatsApp la ma envoyé ne ma sa combat ak Sa ñaata lay fay ma message ku ne ko Baboy sama ménager li ñu waxante nag ñoo ko xam Père Gora woo na ma wax ma ay détails mais dara taxawu ci. mais yaakaar naa ne fi réew mi toll. kuñ fëgg na la xaalis nga ni di nga bëri ci. kon bu la prince seet si woon la xaalis lamb prince sax nañ yoo xamante ni day mettre en mal diggante nit ak doomu aadama ji boo taxee si télé ne wax fay naa diw nangam moo bañ bu yàqu la ndax ñun lamb mooy suñu métier xëy entraîné la ñuy def toog fii di waxtaan ak naan bu ñu amul combat nag li ñuy daj fii si école bi sax ko daj eset lamb mooy seen métier mooy suñu métier bu ñu bëriwul lan la ñuy def kon nga taxaw na jox naa nit ki avance wala jox wax naa ak diw nangam ci moom la wax bu yàqu la bu fekkente ne ñun bañ nañ na tëgg keneen ñun da nekkuñ fi di. Ah, moom li mu wax ne li mu la jox moom la jox Yékini Junior mais ñëpp da ngeen bañ. ñun daal ñu ngi koy ñaar xam naa dëkk bee métti rek ñu ngi koy ñaar xaalis bi ñëw mu ñëw tëgguñu parce que moom vraiment suñu frère la nit ku baax la waaw mais na xoolaat kii bi rek waaw. communication bi yaa gën a xam. <laughs> ñu ñëw ci sa diggante yow ak Papa Sow. Hmm. ñu gis sa combat yow ak boo Niang yow ak euh, Moussa Ndoye bi nga koy waaj nga waaj sa open press boo kii Papa Sow ñëw ci ñu gis la moom bi muy def euh, réunion bi passé gis nañ ci mboobu passé lépp te gisuñu ci lu waral loolu. waaw ñu ngi koy nuyu bu baax moom papa di ko ziar di ko bëggee di ko ñaanal ndam si combat bi mu jëm suñu mag la suñu grand frère la gis nañ doxalin bu rafet bi muy doxal jëmale si ay rakam wala boog man sama bopp li ma engagé mën naa ko wax parce que def na geste yu bëri jëmee ci man. woo na ma comme ni nga ko waxee am na open press mu ñëw mais jouru euh, assemblée générale bi passe dafa tombé gàmmu jaamal ku ne xam ne ne man Saalum Saalum laa siin laa dëkk maa ngi Moussa Balla Gaye mi ñoo fa àndoon dem seeti ji suñuy sëriñ suñuy xarit war leen a ndokkale parce que nit it bu lay féete ci naaj bi danga koy féete ci kër gi ñun foofu lañ dëkk suñu dëkk moo amoon gàmmu ñu dem fa tamit Moussa euh, Papa Sow jour boobu woo naa ko téléphone ñu waxtaan ci bien avant bi mu passé aussi woo naa ko téléphone mu xam ne lii moo tee ñu ñëw mais ñu ngi ciy jégalu bu baax di ci jégalu waa parcelle yëpp di ko ñaanal aussi ndam si combat bi mu jëm. ñoo mhm. gisee si combat bi mu jëm si tey bi muy mujjee daan sa mag la ba daan ko mu dëppaat ñëw ngeen sa combat yaa ak moom ngeen woon ba ba mu ñëw duggaat fa parcelle wala ba Papa noo gisee làmb jooju ak coow ci am lépp. waaw moom làmb la rek làmb ànd. bu amul coow du neex promoteur bi du neex mbër yi du neex askan wi ñu ñaan yàlla rek coow li jur jàmm ñu ñaan Papa yàlla may ko ndam. moo gisee que li xew arène nationale ci diggante ñàkk jaww ak Alioune Seye 2. waaw yàgg naa coow fu ay xale di daje et puis bëree sport de combat la dafa am laaj rancune am mook yooyu ñoo ànd tension yi day jóg mais li xew ci yeneen discipline yi xewul ci làmb làmb moo amul bàjjen rek. bi Demba Diop di daanu yàlla tere bu doon làmb la làmb dootu am Sénégal. lan moo tax bu ñu waxee. xaaral ma ñëw bu keroog seetaan nañ fi Casa Sport ak AS Pikine yàggul dara. te loolu yëpp amagul si làmb mais làmb presse bi ku jóg léegi nangam làmb làmb nangam émission làmb làmb. ban presse site làmb non site yi fii def làmb bëri na wasaare ngi nii ñëw judd dugg si làmb leneen ak leneen dugg si kon làmb dafa yaatu ginnaaw. kon ñun ñi si nekk il faut ñu xool communication bu baax bi ñu ciy wax sport boo dem si àdduna day am li am si football musul am si làmb yàlla bu mu si am ay doomu Sénégal ñoo koy def ñaanal luñu leen ko li am si nawetaan bi rek amagul si làmb mais ñu bàyyi bàyyi di jël point yu négatif yi di ko vulgariser man sax si loolu laay wax benn wax bu ndaw boo koy jël di ko wax di ko wax bu yàggee nit ñi sa bàyyi si xel yàgg nañ fi gis mbër bu dugg si si làmb ñu doorante ay supporters def ko wala. yow loolu dal na la sa diggante ak Lagos. waaw non kaa yi sax bokkul parce que man sama diggante ak Lagos nit a toll si tribune bi sànni ma xeer gisuma ko xeexuma ak moom sama cumukaay la visé sànni xeer mu dal ma bokkul ak mbër bi wàcc mbër mbër di bàkk comme mbër di bëre comme yow yow doo mbër nga sotti ko ndox loolu beneen affaire la xëy na loolu règlement bu ñuy euh, fee yu ñuy yu ñuy yu la ak waa CNG ak yooyu ay sanctions yi si war a teg ak yooyu mais jotewut ak li ma daloon dara li may wax ci loolu rek mooy nañ bàyyi détails yu sew yi ñu jël di ko vulgariser làmb ak coow moo ànd. mais mbir la moo sooxee violence ah, tax man de vision mu football nag ma laaj ma tontu la li ma xam. xëy na keneen nit bu la laaj boo ko laajee moom dina mën a justifier lu mu la wax c'est juste pour wan la ne ñaari ñaari mbir la yu tolloo xëy na tolloowuñu ay mbooloo mais mën nañ leen tëkkale parce que làmb football rek la fi xaw a tollool li fi ràmb di dajale si ay ay xale ay jeunes di ko dajale si askan bi amul beneen sport bu ko fiy def kon moom lañ ko mën a tollaleel voilà mais li xew pourquoi bu xewee feneen duñ ko wax bu xewee si làmb ñu koy wax loolu rek moo tax ñu koy. làmb moomul bàjjen. noonu la demee. lan nga gën a bëgg ci palaa lekk. non man nag man taalibe laa man moom aw ma aw ma aw ma problème yooyu waaw man daanaka lépp. non bañu ma dara xam nga baat bi day rëy <laughs> mais bëri ma may. waxal li nga gën a bëgg. non ma may. wala gàlla toggalee lan nga koy ban plat mu toggal ko moom lu mu togg baax la lu mu togg neex na. <laughs> baax boo tuddee gàlla mu kontaan. <laughs> Garga Mbossé am na waykat. waaw bien sûr ku amul waykat kay amul. man ku sa woykat non man ñi may déglu bëri nañ de senegal wala. ci international fan ma ñaar fan. foo ko tànn baax na. boo tànnee Sénégal. non Sénégal ñi may déglu bëri nañ. mais li ma gën a préféré Tracy Chapman laay ëpp lu may déglu man. kooku. ah yow yaa xanaa yow doo. man mbalax rek laay déglu <laughs> nga yóbbu foti. Eh, te nga bañ a waxal fii. man li ma préféré nga ma laaj de. li ma laa lay wax. waaw léegi waxal ñaar. hôtel California. lii moo tax ñu ne da yow dañuy wax fii yow nga jël wax ji zoom ko ko fee. daa stray man li ma li may li may li may li may li ma ëpp li may déglu moom laa lay wax dag ma laaj daal loolu laa ëpp lu may déglu voilà ay acoustique Sénégal ay traditionnel affaire yooyu quoi waaw. moo tax nga bëgg boo ñëw chaque jour làmb di andi cosaanu séeréer njuug bi lépp nga ko jàpp ko maanaam bu dee làmb ji cent pour cent la cinquante bi doo koy andi ci. cosaanu sa njuug beeg ambiance ñëpp dañoo saan sa combat ak Moussa Ndoye donc ko ciy fësal ba mu ëpp. waaw man séeréer laa sama combat ak Moussa Ndoye ak sama combat keneen ni ci yem séeréer laa yëfu séeréer laay def man sama samay maam côté gauche côté droite raxuma dara man séeréer la 100 pour cent aw ma maamu beneen xeet. kon man yëfu séeréer rek laa war a def. leneen lu ma def rek dama koo jéggaani. balaa may dem di nga ma may fi njóg bu sax. <laughs> est-ce que mën ngaa tëgg tëgg mu sax. Oh, loolu day problème. <laughs> jeex na Balla boo tëggee tëgg mu sax ma may la njóg mu sax. à part bi ngay def ban sport ngay gën a suivre. Euh, man nag boxe mooy sama sport. Euh, maa ngi doon am ay partenaires rek ay nit yu ma doon jëflanteel aussi parce que combat bi rek rek bëree Sénégal MMA bi man lañ ko njëkkoon a proposé avant may dem Amérique. waaw mais dafa fekk ma waroon dem bi may ñëw juste quinze euh, une semaine après la combat bi waroon yegsi bon mosuma ko def aw ma ci woon yenn notion yi te bi may dem aussi dafa am leneen lu ma yóbboon loo xam ne xaw ma woon ndax dinaa ko mën a boole. boo tax mu ma ma joon décliner offre boobu mais xëy na bu yàlla dogalee aussi suñu wërsëg ne ci wala ñu mën ko suivre ñun daal ñu ngi fi pour sport. mais sport bi est-ce que wóor na ci mbër yi parce que ay wéqante fii mbër da nga dóor rek toog bi nga toog fii sa wóorul yàlla rek moo wóor. daal daf ma fee a daal fii rek moo wóor lépp looy dugg daal danga koy jéem a jàng maîtriser ko lu nit def am rek nit def na ko ñàkk waaw danga koy maîtriser xam li la ci war xam li nga ci moytu xam li nga ci war a def boo ko mënee nga def boo ko mënul nga bàyyi seet leneen parce que ay ndaw lañ te dara yàggul sport benn temps la boo ci mënul def li ngay def bàyyi ko mu vaut nga teela a bàyyi dem seet leneen. boo amoon kàddu yu mujj looy wax. waaw noo gisee wasaare làmb balaa tuum ci wasaare kontaan ci yéen bu baax bég ci yéen gars yi moom yàgg nañoo bëgg sama émission depuis Amérique am na seen benn waaju fa nekk si fekk ñu xaw a sore mais depuis foofu lañ ko bëggoon jël yàlla dogal mu sottee fii yow aussi ñu ngi lay balaa nga balaa nga yegg dafa am lu ma fàtte sax euh, guy gi dégg naa moo ngi États-Unis sa diggante ak guy gi parce que dama ko dégg dama dégg guy gi mu ne nga laaj ko fi yow yaa ko laaj mu ne moom Eumeu Sène la visé te dégg naa ko mu def sorti nee na moom Bombardier la bëgg guy gi moom champion la lépp jaadu na mais wax dëgg yàlla pare ak moom ba nga déggee loolu nu mu la def ak moom nee noonu Eumeu Sène la bëri te Eumeu Sène pare nee na ak moom est-ce que combat yaa guy gi ñoo ngi koy dox. dégguma woon loolu yaa ma ko wax mais man maa ngi fi pour mbër gee keneen ak keneen maa ngi fi daal ku ma làmb la rek pare naa. baax na kon jox ñu kàddu yu mujj yi. waa di bëgg bu baax ci sama gars yi équipe bi di ziar ñi fi nekk ñëpp ak ñi ñëwul ndax ñi ñëwul ñoo ëpp sax ñu ñëw di leen kontaanee. di rafetlu seen taxawaay booy ci am combat eh, ñaanal yàlla may leen ndam ñu ci amagul combat yàlla may leen combat parce que fii ay champion yu bëree ngi fi te làmb ku ne xam na ne dafa métti ñu ngi leen di encouragé bu baax baax a baax a baax di wax ne ñu ngi seen kanam ñu ngi seen ginnaaw. waaw gars yi gis nga lii moo fi amoon ci wasaare làmb wasaare TV ñu seet si Garga Mbossé mu wax leen li fi am lii ma sol nag. waaw xam nga taaru ba taaru ba faw ak Baye la numéro bi moo nekk noonu 377 376 77. ko bëgg nga contacter ko foofu xale la nag dafa am jom bokk ci réew mi waa réew mi nawloo ko kon damaa bëgg ngeen jàpp ci bu baax baax Garga noo gisee loolu. waaw loolu moom rafet na vraiment Baye Talla suñu xarit suñu doomu ndey di wax ne taaru Baye Fils bi ñëpp ñu ngi ci biir waaw ñun ñoo ko war a valoriser consommer local lañ wax waaw. jaajëf kontaan naa ni lay demee ak yeneen mbër Wassare Lamb Wassare TV Zaire